alal jiin bismillaay ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi maam maram njaay riw maa ngi may soow te ko réew mi soow booba danga siiw bàyyi ndey ak njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba dalee jiin booba tuuti laa ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb lay bari bëree bëri lay bëree bëri te lay bëree bëri ndaanaan la ñaari yoon de du Sénégal 9e édition tournoi de lutte de la CEDEAO équipe bi nga xamné ne Ambroise Sarr en tant que technicien de la lutte xalé yoy nag nga leen jàngatee technique alhamdoulillah bi alamin ci alamin jërëjëf dèjà ñu ndokkeel ñëpp rek ci visite bi nga xam Sénégal yee ko bokk CEDEAO yee ko bokk eh, mérite du Sénégal nag mooy tey 9e édition neuf édition yëpp Sénégal lañ ko défé donc c'est énorme et ñi Amoura Sarr sélectionné ay doomu Sénégal lañu di bëre ci mbapat yi di compétir ci tournoi drapeau chef de l'État eh, tournoi drapeau chef de l'État nag foofu critère la pour nga sélectionnable booy xool bi ñuy sélectionné bari woon nañu mais au finish nag il faut cinq cinq leaders te leader bu nekk rek amoon nga deux sparring partenaires matoon nañ quinze ou plus de quinze et c'est pour trier nag ci critères yu bari

maa ngi craindre un peu craindre ma kenn mais équipe yi nga xamante ne ñoo ci gën a dëgër dana naan Gambie déjà trio may génnee laa laay génne Niger ak Sénégal après derrière day am Nigéria parce que Nigériens yi seen dëkk dafa am bëri mais dañoo làqatu parce que ay anglophone lañu ay deux ans yu nekk trois ans yu nekk dañuy ñëw ci tournoi yi ay tournoi CEDEAO te moment bi ñu mujjee ñëw évolué nañu parce que il faut dire que ne c'est de très bons lutteurs mais lu traditionnel bi nag xëy na dañu xaw a faible mais daal ñett ba ñeenti équipe yooyu daal ñooy les meilleures équipes quoi. merci beaucoup. Salar ma dee ci door. maam góor gi Ndiaye sëtub maram Djil. bàyyi maam maram Ndiaye réew maa ngi may soow. te ku réew mi soow booba da ngaa ndey ak sa Ndiaye maa yàgg ci coow. ndaara yàgg na maa jiin. ba ñu jiin booba tuuti laa. booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma damay xeeb lay bari